min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu nuyu bokki taalibe yëpp fu ñu mën nekk ci àdduna si rawatina bokki taalibe yi ci biir réew mi rawatina itam bokki taalibe yi nga xam ne danoo am tawfeex yi dëkk Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii di Tuubaa te waxtu wu nekk foofu la ñuy tàmbalee sunu waxtaan bu jëmee ci liggéey bi liggéey bi nag liggéey bu nu xam la bu nu yàgg ànd ak yéen mooy mu jëm ci seetal dëkkub sëriñ Touba bi bala ñoo àgg ci màggal gi bisu Serigne Touba bi te liggéey boobu itam danañ fàttali fa mu tàmbalee woon rek muy 2008 sama Mamadou Lamine Baara di xalifab Serigne Touba bis mu wax Cheikh Mamadou Mountakha mii doonoon jëwriñam ci liggéey ba ne ko dama bëgg ñu setal dëkkub Serigne Touba bi balaa gani Serigne Touba yee ñëw Serigne Mountakha ba mu jógee kër sëñ Baara dama daal di woo ma Cheikh Mamadou Lamine damaa jox ab liggéey boo xam ne da koo teg sama loxo tegaat naa ko ci sa loxo mooy ñu seetal dëkkub Serigne Touba bi balaa gani Serigne Touba yee ñëw sëñ Mountakha ne ma na ko ànd ak bokki taalibe yëpp. na nga ko ànd ak bokki jullit yëpp rawatina waa dëkk bi bañ defe ko ni ko sëriñ bi bëggee at mooma itam moom sëriñ Muntaxa moo jiite woon liggéeyu màggal gi tax na mbale moomu ñor gum ko ñoroon moom sëriñ Muntaxa bañ ko tàmbalee bis bu set day xëye këram wax ne nan dem ci liggéey ba ca bis bu njëkk ba daa demoon fa ca liggéeyukaay ba jóge fa dem kër Serigne Touba te kilifa yii ma seq mën nañoo seere loolu ndax ñoog moom da leen daan woo ñu toogandoo ci kër Serigne Touba di yendoo fa noonu dem ci waar bi Serigne Cheikh Fall Gueye mii ak Serigne Khadim Diop mii ci ña ko daan wéttale ci kër Serigne Touba la bokk lañu bokk daan mu daan fa yendu bu xëyee ba ngoon wax ma ne ma nan waajal liggéey bi naa soññi ñëpp te wax jëwriñ yi ñu feddali seen i laxasaay song ko ci passeef ak yitte ndax liggéey boo laaj yitte la ne ma woon itam naa dem ci sëriñ Cheikh jëmb mi fi nekkal sëriñ Cheikh Ibrahima Fall ñu wax ko liggéey bi mu soñ njabootu Cheikh Ibrahima gépp waaye nag mu teg te ne mën nañ soññi taalibey sëriñ Touba yëpp liggéey bi taalibey sëriñ Touba yëpp ko bokk waaye xamaloon ma it ne ma liggéey bu aju woo def yitte la ndax liggéey bu réer bu diis la waaye dafa bi ma waxee loolu dafa jóg taxaw ne ma Cheikh ma ne ko Mbacké mu ne ma liggéey bi bu yéwee na ñëpp xañ nañ ci waaye lu ca des nag sunuy baaj lay sunuy bopp sunuy loos lay wàcc ma ne ko dara du ca des noo ko bëggee ni lay amee dana yéwee ni nga ko bëggee te booba it dama jaayante jaayante waale taalibe yëpp ndax wóor na ma ne taalibe yi ndigal rek la ñuy déglu ndigalu Serigne Touba rek la ñuy déglu rawaat na ndigal loo xam ne Serigne Touba xamal na nu ne bu nu ko defee lu nu bëgg daanu ko am kon boobaa loolu rek ma doon suñu yitte liggéey boobu yi noonu la ko daan defee at mu ne at moomee itam ci biir soññee ba Serigne Mountakha waxoon nañu ci ay kàddu ci xamal nu liggéey bi setal Touba ni mu toll ak na mu demee bokk na ci lam nu waxoon ne setal Touba di ñett ci la gën a gaawe xel mu set wecc sell lool ba mën a xam lu baax xol bu sell ba mën a bëgg lu baax ak set ci ay bakkaar Serigne Mountakha noonu la ñu waxoon ni yooyu mu ngi gën a gaawe ci setal Touba kon noo ngi koy fàttaliwaat mbokki taalibe yi booba itam xamal la nanu ne lépp lu waaye di wut ci sëriñ bi rek mu ngi gën a gaaw ci setal ko dëkkam bii te booba ci lan déggee wër ci ay mag itam ñu nettali noo ne sëñ Cheikh Mawlul Moustapha mi njëkkee wutu Cheikhul Khadim at moom njëkkee woote ne nañ setal dëkk bi moom ci boppam fa mu toogoon daa daa nekkoon di setal di ko wër di ko def ci ay poosam kooku doon na wone setal si wàll li muy jëriñ Cheikh Mawlul Moustapha dégg naa boobu xaale woon na ne taalibi bu ne day wala jullit bu ne léeg-léeg dana toog ba am yitte joo xam ne ci diggam ak boroomam lay dox te mu toog ba gëm ne boroomam rek moo ko mën a dimbale ci yitte jooja nee na loolu mi ngi gën a gaawee ci seetal Tuubaa te fas ci yitte jooja kon yitte ju ci fas fas da ko ci amee am ku nu nettaliwaat ne mag nettali na ko ci ñi jege woon sëriñ bi ne sëriñ bi ma bés mas naa wax ne sama dëkk ba di Touba dey ku ma fa setalal ab xasab ma warul la sëgër ci àjjana kon setal Touba lu rëy la lu am solo la te mag ñi am na leneen luñ daan gis ci setal Touba mooy daa dañ am ku wéradi seen biir kër wéradi ku diis te li ci ëpp wéradi xel lay doon te mag ñi daa nañ ko faje ci duñ ko yóbbu ci docteur duñ ko jox dara dañ koy seetal loo ci kër gi mu nekk rek te bu yàggee ci kër gi seetal dañuy dem ba gis ne la mu àndaloon dañ na te loolu de man man na maa seere ne nat loolu jaar naa ci ak njaboot sama kër kon liggéey boobu nag buñ ko dëgmalee te nu yéene ci ñëpp li ñu yéene suñ bopp danañ fàttaliwaat ndigalul seetal Tuuba te loolu bokk na ci at mañ ko njëkkee def suñu Sidil Moxtaar mi fi wàccee barki dem ñibbi àjj na ñu ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom fayal na ko mu dëkkee ak maamam ji Sëriñ Tuuba liggéey bi saa suñ ko masaan di jublu moom moo may njëkk a woo këram ba ma ñëw mu yëkkati ab lim jox ma ne ma defal ma ko ci liggéey ba ndax liggéey bu rëy ngeen di sumb ba ko masaan def Cheikh Amadou Mountakha mii di Serigne moo fa jógee moo may woo am lu mu yëkkati ma ne defal ma ko ci seen liggéey boobee ndax liggéey ba na mu toll ku bëgg jariñu danga ca def sa dara kon buñ ko di dëgmalaat waxtu wi di jublu si te santu ñu ma ci lu dul yëgle tey ma yéene ci sama bokki taalib yëpp li ma yéene sama bopp dinaa fexe ba ñëpp yëg ko noo xam ne noo ngi subuwaat noo ngi subuwaat liggéey bi noo ngi ciy jubluwaat liggéey bi nag na ngeen lañ ko daan tàmbalee waajal di woote ay daje am na woo daje bu nu woote àllarba jiinu weesu waaye danañ woote waat ab daje alxames jiinu jëm te lépp dañ koy waaj di ko nas waaye liggéey bi waxtu wu nekk at mu nekk ci benn panu safar lay tàmbali noonu dafa leen jëmaat ci diggante bi nag am na liggéey yu bari yu fi dox ak ay leeral yu ci am nekk aju ji nuy ñëw bëgg na noo seetal bàq ya waaye liggéey mbale mi benn safar benn panu safar lay tàmbali la cee dolli ko waat dafa am ay oto yoo xam ne waa Touba ci kanam ci njiitul sëriñ bi moom sa sëriñ Fallu dañ koo toppatoo woon muy juróomi oto ñu yët ko sëñ Muntaxa bi mu ñëwee sëñ Muntaxa ne sëñ Seex jëmb la koy teg ci loxoom ndax liggéeyam sëñ Tuubaa bu toll noonu buñ ko andee ci loxol Cheikh Ibrahima Fall rek la ko mën a teg ñoom nag liggéey boobu boobaa léegi ñu ngi koy waajal di ko nasaka nocci ba tàmbali nañ caa liggéey ab ajuma ji nu weesu wax nañ ne par ajuma ju ne danañ ci liggéey te ci këri Sëriñ Tuubaa yi it kër Cheikh Moustapha lañ tàmbalee buñ ci jógee dañ dem kër Cheikh Mamadou Fadal jóge ci kër Cheikh Mamadou Lamine kër jóge ci kër Cheikh Mamadou Basir nan lañ koy toppee këri Sëriñ Tuubaa yi waaye loola nag dadul daqoon teg suñu liggéey bii nuy def noonu muy setal gi ndax suñu liggéey bi dafa war a yaatu ñëpp jàpp ci ndax ren dafa aajowoo mbay mbayit mënta gaaw te mënta yomb lu ñuy waajal lay doon ndax dëkk bi defoon nañ ko ay zone am na ay chef de zone yoo xam ne danañ waxtaan ak ñoom ñu xool lu ñuy mobiliser seen nit ñi seen zone yi ak nu ñu leen di jàppalee bañ mën a tàmbali mbay mi te mbay moomu dañ koy tàmbalee ci ajjuma ji nga xam ne ci la ñuy bay armée li bàq pour ñu ci jógee ñu waajal mbay mi ci ci gox yi waaye dafa am beneen liggéey bu ci dolli ko pour rëy pour diis mooy Touba neemu taa te yàggoon naa ko wax at yi ñu weesu ne nañuy bàyyi xel ne bu si màggal gi ñëwee ci nawet day bu ndox yi taataay yi wàññikuwut jàllantu dana jafe lool te li ciy gën a jafe mooy li wër jumaa ji ku amul laissez-passer doo fi jaar kon oto yi bu fekkee amuñu laissez-passer te mënuñoo teggi ci mbeddi suuf yi dana indi jafe-jafe lool ci nit ñi ci dëkk dem bi léegi dañoo am yéene nag lépp luñ mën a sëkk ci mbedd suuf yi xaw a jege jumaa ji nu jéem koo sëkk nan koy defee nag xamagun ko waaye dañ koy bàyyeeg borom liggéey bi moo nu ciy gindi moo nu ciy teete moo nu ci dimbale ban mën a def liggéey boobu te liggéey boobu sëkk sëkk boobu mooy dimbali nit ñi ci ñu màggal si bañ mën a dox jàllantu te ni ko sëriñ bi waxee woon rek seetal dëkk bi balaa gan ñi ñëw bu gan ñi ñëwee ñu fexe ba bu ñëwee mën a jàllantu def seen i dem ci seen i dal màggal seenu màggal ñibbiwaat ci jàmm lépp lu yombal loola ci sunub liggéey la bokk te dañ koy fasoo jiital rek borom liggéey bi mu dimbalenu ban mën a caa dox loolee buñ ci doyee dan koy def ci mag setal gi njëkk màggal buñ màggalee ba noppi danañ setalaat waaye njëriñul setal gi ci saayir nag mel ni misaal képp laa ci daan joxe te ba léegi dinaa ko joxewaat saa suñ masaan nappi ci màggal daanañ wax dëkk bi ni taqee dëkk bi weñ yi ñuy dem ba àgg ci ne choléra te at moom ñu ko tàmbalee 2008 ak léegi baatu choléra moom fay na Tuuba ba mu setal bi léegi amatu fa loolu den sëkk wane ci njëriñul setal gi ci zahir te demoon naa man bay dégg ñuy wax ne choléra bu amee ci réew mi fenn lay jógee te boobu Tuuba rek lañ bëgg a wax bëgg a wax ne kon Tuuba dafa setul tax choléra ci tax lay jógee ba Tuuba setee na choléra kon loolu moom jaana tàkk kon nag nuy woo bokki taalib yëpp di nu waajal liggéey boobu sumb ko kenn ku nekk noo ci mën a jàppe nga jàppe ca noona waxoon naa ne maa ngi beral waa Touba am nuyoo nag waaye dama leen beral ab soññ ndax lii tax setal gi yomb ci waa Touba lay jóge ndax ay oto yoo xam ne ñu ngi biir Touba tàmbalee ci regroupement benn ya ak ku fa am oto bu ma mën a génne mbalit ñu ngi la cay woo képp ku fa am pelle mécanique nga la woo waaye mépp mbooloo moo xam ne ànd nañ Touba di yëngu ci dara te la ñuy jóge dara man jaa génn dem ci liggéey bi ñu ngi la ciy woo ndax ku amutub oto mën nga am gasoil wala nga am loo xam ne ñiy liggéey dañ leen toppatoo ay xéewal fa ñuy liggéey lañ leen di fekk xéewal yi ñu jëriñoo ko loolu lépp dafa am ci liggéey ba kon noo ngi woo ñëpp nu ñëw nu ànd liggéey bi waaye la ma daan mujjee rek bu nu ko àndee ba defee ko ni ko sëriñ bi bëggee bu nu fa jógee li nu bëgg lépp dana na ko am kon nag yàlla nañ daje dajeeg tawféexi sëriñ bi sëriñ Mountakha day wax ne tawféexi sëriñ bi lu mu dugg loola day yomb loolu day yéwén loolu day barkeel kon yàlla na ci dajeeg tawféexi sëriñ bi ñoo jërëjëf tawféex ja ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax salaamaaleykum wa